félicité ci seen manifestation bi ngeen def bu doon ci man dong la manifestation du am man gëwuma manifestation gëwuma ko li Alaaji Taala Si la wax léegi dafa leer bu doon tey jii dañu ne Youssou Ndour mooy ñëw wala keneen nit ñi mun nañ fay yendu fanaan fi wante tey jii li nga xam ni moo fi am ambulance bi du ma jëriñ mën na ma jëriñ comme mën na ma bañee ñàkk jëriñ mën na jëriñ samay mbokk comme mën na bañ a jëriñ samay mbokk mais bu ñu koy def ngir yàlla dong moo taxoon ñu koy def donc man li ma doon def ngir yàlla moo tax ma koy def député laa nag mais député bi daf maa dab rek étiquette la bu ñu ma tappal donc étiquette bi day dañ mais li gën a wér mooy taalibi la taalibi laa te boo gisee may wax loolu damay gërëm di sant sëñ Abdou Aziz Alamine di xaratu Talla Sylla ndax Talla dafa ñëw fekk ma ci biir néegu sëriñ bi mu ne mu ñëw mu ne sama xarit ñëw na maanaam comme xaritu sëriñ bi la kon mun naa am lu nekk ndax sëriñ bi du xaritoog n'importe qui loolu moo tax bi ñu nee Talla Sylla meeru Thiès jaaxle wuñu tiituñu bi ci des meeru dëkk bi muy Piki euh, Thiès Nord muy Lamine xam naa ne Medina Fall nga dëkk. yow ak sa gars yi yéen ñëpp yéen a bokk seen groupement ñoom ñëpp dañu waxoon ne que ñii li ma boole parce que il faut bokk ngeen ko cinq ans ñu ngi ànd ñu démb ànd ñu laa wax ñu ngi ànd nit ki nag boo leen ànd ak moom quarante cinq dina am loo xam ni que boo leen koy defante dootul ngistal dootul leneen moom moo ma woo téléphone fekk ma génn télévision. mu ne man de du ma politique mënuma politique mais bëgg naa dimbali waa Medina Fall ma ne ko Pape mu naa ma ne ko politique dafa métti te du ku ne moo ko mën comme yow doo politicien homme d'affaires nga lijjantikat nga man de mun naa la dimbali mais lu may def rek ngir yàlla laa koy def te lu may def bu ma sañoon kenn du ko tudd mais ñoom dañu déroger à la ndax tey jii ñu bari mun nañu jooy lii may def nii tey ne ñoom ñoo ko gënoon yeeyoo ko Medina faa mais da ngay jàpp ne yàlla nag mooy wërsëg. kenn ku nekk sa wërsëg bu nekkoon kuli koor sax di nga ko jël man loolu laa gëm dama gëm ni mit na fall li ñuy jot si man wala li ñuy am si man seen wërsëg la bi des monsieur le maire man de du ma wax lan laay def du ma wax lan laa lay defal suba du ma wax lan laay def gannaaw suba dama ne yaa ngi fi maa ngi fi bu may defaat leneen suba di nga ko xam parce que dina ñëw si yow ne jóg nee na kat nañu def nangam wala def na nangam ba pare mais di di di diggee te ak seegul du sama cër mënuma ko te musuma ko def man nag jërëjëf dama bëgg rek monsieur le maire ngeen jàpp ni man seen partenaire laa député laa nag mais seen partenaire laa mais duma wax nag te jeexal te gërëmuma transporteurs yi di gërëm aussi Pape Wade ndax man transporteurs yi si man la ñu bokk man si ñoom laa bokk man transporteur laa doomu transporteur laa transporteur laa yàlla moom war wërsëgale peut-être may am ay opportunité yoo xam ni danaa ko mën a dugal wala ma dimbal si ñeneen ñëpp loo xam ni war naa ko mun def wala mënu ko def rek dinaa ko def Thierno la Sall comme ni ma waxoon wax naa ko maa ko woowal sama wax ko mu ne ma sama directeur de cabinet dina ñëw parce que Medina Fall la dëkk te waa Medina Fall xam naa ko jarul nga demal li man xam naa ko donc ñi ngi koy sant moom tamit di ko gërëm ci teewaayam parce que xam naa ne tey dafa xat ci ñoom parce que manifestation yi dafa bari biir région de Thiès muy Thiénaba muy Pire. fu nekk dafa am manifestation lépp manifestation la donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci li nga xam ni moom ngeen def ak déplacement bi ak ñëw bi di wax waa Thiès dañuy doog a tàmbali rek mais l'essentiel ci kanam monsieur le maire jàppale ni man partenaire laa man député laa cest à man fu ma neex ma dem ku ma neex ma dimbali man géré wu ma parti man sama parti mun naa leen wax tey benn secret sama parti Thiès la juddoo man CPJ bi nga xam ne moom laa jiite. Ablaye Diouf mooy secrétaire général bi Thiès la dëkk ba may dem élection moom moom woo ma ñëw mu ne ma comme da nga bëgg a dem élection kaay ma jox la parti bi nga dem ak moom mais ku ne xam ne new moon si parti bi moom laay Diouf parti bi depuis 2009 la ko ko créé woon. kon kon xam kon xam nga li ma la wax kon xam nga ni kon ku mun a jël parti am kon sama parti sama sama sama dem assemblée ci Thiès la départ kon mun man dama am njukkal bu war a delloo waa ndax ñi jox parti bi nga xam ne moom a yóbbu assemblée Thiès lañ dëkk ñoom it ñi ko defar Thiès lañ dëkk ñoom bokkuñu sax mais man dem naa peut-être mais gëm ma ak yaakaar ma moo taxoon ñu ñëw topp ma pour ñuy àndandoo dem élection kon mënu ma def loolu sant Ablaye Diouf sant ko moom ak ñi mu àndal ñëpp ak waa CPJ yëpp wax leen ne que on est disponible maa ngi sant waa Tivaouane yi parce que déplacé wu nañ ñëw mais loolu yëpp lu ñu ko àndandoo bu rafet lañ ci bëgg pour ñëpp xamante ñu xam ni lem li may recommandé waa Thiès nag mooy li Pape Seye wax sànq. àndandoo leen parce que bu àndandoo mooy doole àndandoo leen c'est-à-dire fii lu ñu fi bëgg a defar mun nañ ko defar mais bu ñu naxantee defar ko kenn ku ci nekk boo jëlee benn tomb teg tuuti bu yàggee tomb bi jeex en tout cas li wóor bu wóor mooy man de teg naa sama loxo commencé naa def du ma bàyyi jamais nag te nag aw ma dara lu ma ci séntu lu may def rek ci ngir yàlla laa koy teg maa leen di gërëm di leen sant wasalaam. mbokki Medina fal ñoo ngi leen di nuyu monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'énergie monsieur le maire de la commune Thiès Nord suñu kilifa diine yi nga xam ne yegsi nañu ci barab bi ah sama mbokku looyeen bi di délégué de quartier bi monsieur le président de la chambre de commerce ak kilifa yi nga xam ne teew si nañu ci jataay bi yépp ak dayo bu ñu mënti am may jaar ci ki nga xam ne moo jiitee comité de développement local bi te xam ko ci xereñam xam-xamam ak pasteefam ci lépp luy yëkkati goxam ah Pape Sey ak Pape Mbodj yàlla dogal ñuy samay cousin bopp dama xam fi ñu jaar ba yegg si ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu maa mujje nag man maa mujje nag ki nga xam ne mooy l'honorable député Diop si c'est vrai sama mbokk sama mbokkum taalibe di sama xarit soxna Nogoy jaay mi ngi koy tooñ léegi naan ko tey Jóob amu fi Njaay fi am waaye tey Jóob si ñëwul Jóob si moo ñëw Jóob si waaw dafa Jóob si te li mu Jóob te li mu Jóob rafet na ah, li am solo mooy cees moom ku nu defal ñun la jërëjëf ñun lijjanti wuñu ki nu defal ci ban parti la bokk lijjanti ki nu defal ci ban tarixa la bokk lijjanti ki ñu defal ci ban waaso la bokk li ñu lijjanti mooy ki defal cees te defal ko lu baax voilà ñun ñëpp dégg nañu li nga xam ne def na ko ci fan yi ñu génn bam ko defee dañ ne ko jërëjëf waxoon naa fii ki nga xam ne mooy ah ministre Mor Ndiaye Mbaye waxoon naa ko nee naa ko Thiès bëri na gox yoo xam ne soxla nañ fa ay lànk ma ne ko soo ko defee dinaa wër Thiès yépp ne yaa ko def ni nga xamante ni. noonu laa amee mbégte ci recevoir délégation boo xam ne ah àndoon nañu ak président comité de santé wu district yi ah moom ñoom ba nu dikkee nee naa leen Diop si ànd ak Pape Sey ak Pape Mbodj li nu def ànd ko ak seeni xarit mais dinaa wax waa Thiès yëpp ne ñu ngi leen di gërëm def lu baax rek mooy lu baax nanu fexe ba ni ko kenn ñaane fii ci intervention waa Thiès joxante loxo pour tabax cees te bu ñu bëggee cees jëm kanam dafa am lépp loo xam ne luy détail dañ koy tege ne te jiital li essentiel li essentiel mooy que cees avance man bu njëkk bu nu daan nekk ci campagne bu ñu daan wax benn dëkk ñaari gaar dama daan wax benn dëkk bu gaaree ñaari yoon mais léegi dañu bëgg Thiès avancer mais pour mu avancer day ba avancer sur de bons mais pour mu avancer surde de bons il faut que ñun ñi ko seq ñëpp te ne ci wagon yi ak locomotive yi ñu rouler ci vitesse bi ñu war a rouler kon il faut ñuy diisoo il faut ñuy jokkoo il faut ñuy yéenante lu baax il faut ñuy joxante loxo di jiital ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla ku leen jàppale mooy doomu aadama yi nekk ci jafe ci biir loolu nag vraiment euh, sunu mbokk mii di député ak ñi mu àndal luñ leen gërëm rek du doy bëgg naa daal nga xam ne sunu kàddu yi néew na lool par rapport ak li ñu yéene ci sunu xol pour wax la ko yàlla xam na ni tey am na fukki programme ak ñaar ginnaaw li weesu ci suba man maa ne woon fii laay njëkkee bi ma ñëwee it bugguma dem te àggul waaye a ah, yeneen yi nga xam ne am na xay na du ñàkk mu am ci yenn yoo xam ne bu ma fay dem dina fekk mu jeex waaye comme sunu mbokk taskatu xabaar yaa ngi fi dinañu xam ne du ñàkk bëgg a dem foofu waaye bëggoon na jox cër lii nga xam ne moom lañu def tey ci Médina na te di ko defal waa Thiès yëpp ngir wane ni dañoo am ku bokkul ci suñu biir koo xamante ne xëy na feneen la jóge ñëw defal ñu teraanga gu yaatoo nii ma bëgg ci turu dëkku Thiès yëpp comme maa leen di représenté ma ñëw won ko ni ko waa Thiès yëg nañu lu rafet li nga ci fan yi ñu jëm ci fan yi ñu jëm ndax am na kenn ku ko fi sàkku maa ngi koy xamal tamit ne am na beneen doomu cees boo xam ne buñ te yeggee xay na turam daañ ko siiwal a ah, xamal na ma ni ah won na ma sax kayit yi ndax la mu indi dañ ko war a immatriculer def ko ci turu lu Thiès paa ci turu moom ci turam moom ak organisation ba mu bokk waaye am na doomu Thiès bu lijjanti corbillard ba teg ko sama loxo mais lii moo lii moo rafet maanaam ñëpp bu ñu dugalee rek tepp tepp mooy jur yuréen na kenn ku nekk def dara bu kenn ku ci nekk defee dara léegi mu baax waaw dafa am façon yu ñu tàmmoon mooy lépp di jóge feneen di rot di ñëw am na lu mën a jóge feneen di rot di ñëw mais am na loo xam ne war nañ koo mën a lijjanti suñu bopp pour ñu mën koo lijjanti suñu bopp nag ci laa bëgg a jeexale il faut que ñuy jiital farata yi te wàññi caaxaan bi wóor na ma ni waaw ndax xam nga li tax ma wax leen ko mooy ak jëf ji li muy rafet rafet jëf ji fi am li muy rafet rafet ñi mobiliser wu teew te du ñoom kese la lii di nar a jariñ waaye su fekkoon ne ay champion làmb dañu fi nekkoon walla ay woykat yu mag yu fi war a ñëw ñoom yuusoog ñooñu buñ fi doon ñëw place bi kenn du fi xaj te lu mu neex neex lii ko farata a lii ko ëpp farata looloo waral ku ñuy wax Sidi Rayaahi di wax ne mu ni bomb bi mën a tukkal àdduna mooy bu ñu demee ba jël lu dul farata jox ko gëdday farata ma tëje ko sëñ Muniru Sarr nee na wa bëgg lii wa def lii wa am lii wa tàyyeel lii wa bàyyi lii wa ñàkk lii jërëjëf daanaka li may wax ñi ma jiitu ñoom Pape wax nañ ko intervenant yëpp presque ñoo bokk lu ñuy wax. parce que bés bi tey nag dafa nekk bés boo xam ni leen dong moo ko waroon waral muy bésub sant ak delloo njukkal l'honorable député Diop Sy ndax moom nag def naa bés bi tey génnul loolu waaw parce que li ko waral mooy dañ ni feccum leer bu neexee yaa jaa jàpp si mbagg yi. kon boog yaakaar naa ni lii bu ñu ko mënee ñun ah, honorable député Diop Sy moo nekk suñu ginnaaw parce que moom dafa nekk ndimbalaa kon boo xam ni day dem rek eh, xàmmeewul ku ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom ñëpp lay dimbali te yàlla tax loolu bu ma ko waxee nag firnde ambulance bii mën na dëggal loolu waaw mën na ko dëggal parce que ambulance bii ni ma ko ni mu ma ko joxee dama leen ko bëgg a nettali ci kii bu gàtt rek dama nekk ak moom ñu war a waxtaanee dara ñu nekk pâtisserie Médina di ndekki am benn waaye bu ñëw ni salaamaaleykum ah man dama doon laajte Diop si mun ko maa ngi nii mun ko dama laa ittoo mun ko toogal waa ji toog ah, ni ko man de maay directeur hôpital polyclinique bu bees bii dañ ma fay affecte te hôpital bi ma fekk fi ay yoo defaraat yoo xam ni kes yi amul xaalis bu ko mën a defaree bi ma laajtee sama employé yi ñun ma daal kenn la ñu xam ne boo demee si moom mën na la ko liggéeyantil muy Diop si mun leen may xaw ma ko ñu ngi koy soxlawul xam demal seet ko rek mun leen wax fu ma fu ma koy gisee ñu ngi koy dinañ faral di nekk pâtisserie Médina keroog mu tànte fekk ko fa bi mu dikkee mu daat koy wax li mu bëgg ñu ko dama bëggoon pavé biir hôpital bi euh, parce que daal euh, suuf si bu ma sañoon du ma ko fa amati Diop si ni ko waaw loolu de amul benn problème jëlal numéro téléphone bi ma lay jox bu si kanam nga woo ko dina la indil ciment suuf ak pavage yi euh, kooku li mu doon kon pare na mun ko man de yow xanaa di nga war a soxla ambulance waaj ni ko waaw waaw hôpital bi amul ambulance mun ko man damaa jëndoon benn ambulance fan yële sa ginnaaw donc mais xamaguma su ma koy def ah xam naa dina la ca man ko bul eggale Diop si maa ko gën a soxla ambulance. waaj ni ma sëñ bu ma yàqal man ko dama la yàqal parce que maa la gën a soxla ambulance waaw. si kaw loolu mun ko sëñ bi jinne bu bëggee daqaar ku yéeg daanu comme kii soxla na ambulance bi mënatuma loxoo jox li nga doon wut am nga ko santal te dem ko waa jërëjëf ni ma nag sëñ bi yàqal nga ma donc loolu firnde la ji euh, Diop si li muy dimbali amu ci xejj ak seet donc euh, ñun ñi topp si ginnaawam vraiment lépp loo xam ne lii tudd nañ ko ko ma nga ci kaw moom ci boppam moom ma waxal li ma paap man ko waaw moom ma yow day sama waay li ma la bëgg defal ci Madina Fall lépp waxaguma la ko donc kon ma yaakaar ni euh, bu ñu ànd ak moom euh, lii ñu am ni dinañ ko gën a dépassé dinañ ko romb parce que nag ku la jox añ war ne xaaral reer war nga ko gëm te moom wax dëgg la mu waxante woon ak ñun de le 6 mars 2016 ci kër naar yi ba léegi amul lépp lu mu ci def te nee na woon man de képp ku ma àndal ren ba déwén te gisoo avancement sa yow baba ma leen laaj ndax ndax yéen da ngeen koy ba wala du ngeen ko ba da ngeen koy jàpp ko jàpp kon boobu jàpp leen du dëgg ko jàpp jàpp ah, di jeexal samay kàddu di nuyu ñëpp rawatina suñu chef de quartier autorité yi fi toog yëpp le maire Talla Sylla le maire sama rak Lamine Diallo ak ñëpp di lancer un appel pour à la communauté de Médina Fall que ñu booloo àndandoo nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo ba lépp lu ñu bëgg a def ñu def ko parce que Thiès gi lu ñu fi bëgg rek bu ñu booloo mën nañ ko am donc maa ngi ñaanal appel boobu tout le monde ñëpp ñu ñëw nekk benn di xàcc di dóor wasalaam. ërëm la ndax sunu seetloo ni district sanitaire gi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñu nekk ci bopp bi nekk président comité district bi ci Thiès benn ambulance la Thiès am. bu district bi moom ci fanweeri poste santé ak juróom kon donc xam ngeen ne ambulance jafe na fi benn ambulance la ñu am muy def navette bi ci 35 post yi te coopération foog naa japonais ñooñu ko may xëy na su Ibrahima Seck jëlee kàddu gi dina dina leeral loola. kon suñ demee tey ba post santé yëpp ci Thiès di wut ba sama dogal ñuy wut. sunu mag sunu nijaay sunu lépp muy Pape Seye ñëw ni wutal naa leen ambulance nim ñu nitilee wut gi daanaka da ko foqati fa ko jële kon ko ñooñu ñu ma tax sargal lañu lii bëggoon nañ ko def ca weer waruñu génn ambulance bi yàgg na fi waaye ci ñun la dépendroon pour ban bis lañ ko bëgg a recevoir ak ci nan lañ koy jotee ndax rien que ngir delloo leen njukkal ndax doomi dëkk bi lañu ànd ak doomi dëkk bi maire bi dëkk ci dëkk bi Cees ñi fi falu ñëpp ci dëkk bi leen dëkk ñu bëgg loon a delloo njukkal moo waral bis bii ñu ñaanoon ñëpp ni kilifa yi dañ ko bëgg a ameli ci nii waaye moom su doon ak tàkkusaan rek la su na ko joxee ñu defal ko ñaan mu ñibbi di leeral jóob si ni ko moom loola d'accordoon na ko Pape Sey nangu woon na suñu ko joxee ci benn poste santé ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo ko bokk suñu ko defee lay ñaan nee na xolam sedd na waaye ñun comité de sant yi nga xam ne ñoo nekk ci poste santé yi ànd ak ICP yi ak sage-femme yi ñoo ni ko dañ lay delloo njukkal moo waral tey bis bi mel nii